jaaykatu mayo yi nekkee ci palaasu Yacine Boubou bu Louga nee nañu gisuñu benn yoon seen bopp ci jamonoy Coupe d'Afrique bile rawatina qualification wu senegal ci huitième de finale yi. waaw kan bi moom mayo yi ñu ngi dox ndànk-ndànk mais nam doon doxee daal coupe du monde bi des na quoi dama xamul nag dëkk bu naqare bi la dama xamul nit ñi ñoo yorul quoi ak li weer wi sori mais instant moom ñu ngi jënd ndànk-ndànk quoi mais mais jënduñu comme ni ñu doon Silla nekk ci réseau bi di ñu wax prix mayo yi ak yan mayo lañu gën a jënd ci période coupe d'Afrique bi. instant yi am na yu jar dix mille am na yu am na yu jar six mille cinq cent am na cinq mille. mais moom mooy a dox quoi. bopp moo mu masala parce que wute naag bi kan bi commencé gul ak bi mu commencé bi ñu commencé jaay mayo gi léegi am na wute bu baax a baax daal mais nag lépp rek na Sénégal jël coupe bi. di gën di avancé. am yaakaar ni fii ak si Coupe d'Afrique bi di gën a avancé Sénégal di gën di qualifié ci quart de finale yi ba ci sax final clients yi dinañ gën di ñëw jënd ci li nga xam ne moom moo di ay maillot ngir supporter équipe nationale bi.